C'est suite au rappel à Dieu ce jeudi de Sorna Daba Diallo, épouse du Khalif général des Mourides, que le président de la République est venu à Touba, au quartier Darou Tanzil, présenter ses condoléances à Serigne Muntaha Bassirou Mbaké. Une démarche de foi et de portée sociale qui se justifie par les liens qu'il a toujours entretenus avec le dépositaire aujourd'hui de la voie tracée par Serigne Touba, la Mouridia. Le décès de la défunte femme du calife a plongé toute la cité religieuse de Khadimou Rassoul dans la tristesse. Un deuil auquel le président Macky Sall est venu s'associer et partager la douleur de la famille. Au calife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le chef de l'État a présenté ses condoléances et celles de la nation. ndax yow lépp lu la laal rek day laal Sénégal di laal adduna bi yëpp. Au nom du khalife général. Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a salué le déplacement du président Macky Sall à Darou Tanzil. ci turu Serigne bi mi ngi lay delloowaat am nuyoo ci tànk yi nga xam ne moo la yëkkati ci xew-xew bi nga xam ne xew na ci biirum njabootam. Une tradition qui reflète également toute sa considération à l'endroit de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. sa digg moom lam ci jàppoon dara du ko wàññi dara dindi nee na fa mu la dénkaane woon itam foofu plus qu'un guide religieux c'est un père et un ami une relation connue de tous et de longue date le khalife de Serigne a remercié le président de la République pour cette marque de sympathie avant de formuler des prières pour le repos éternel de l'âme de la défunte prière également pour la consolidation de la paix sociale, la stabilité et l'émergence du Sénégal.